sant suñu ñaari wayjur bu wér gërëm suñu wasila waaye gërëm leen yéen ñi nga xamante ni saa su ne yéen a ngi fësal seen cofeel jëmale ko ci ñun doore ko nag ci maladie tëdd ci hôpitaux yeeg ñi weyale seen i jàngoro ñu ñaanal leen yàlla fëgg seen bopp ñi caabi féete ginnaaw yàlla génne leen waaye way dawlu yi ñu ñaanal leen yàlla atte leen ci yërmandeem jéggal leen seen i bàkkaar kilifa diine yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar leen ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu kilifa aada waaye itam di ñaan jàmm ci réew mi yàlla jaarale ko ci seen loxo ndax nag ñaari banqaas yooyu ñoo ŋànk réew mi ba tax na rek saa yu ñu yeewoo rek suñu kilifay diine dañ leen di ñaanal jàmm ñaanal ko suñu kilifay aada waaye képp koo xamante ni itam yaa ngi yeewoo ci réew mi yëgal ni jàmm jooj ñu ngi lay ñaanal yàlla boo ci mucc benn yoon gannaaw bu ñu la nuyoo ziyaar la euh, di rafetlu bu baax a baax ànd bi nga xamante ni yéen a ngi koy ànd ñun saa su ne euh, di seen ngeen gi télé la 2STV wala sax ngeen di ñu déglu ci 88 point 4 seen rajo Origine ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaar ñi ci euh, réseaux sociaux itam via Euh, Facebook YouTube yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax bu ma ci jaaree nag sama xel day daal di dem mbokk yi nga xamante ni ñoo nekk bitim réew maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di leen ziar di rafetlu bu baax a baax ànd bi nga xamante ni yéen a ngi koy ànd ak ñun saa sune waaye kenn ku nekk xam na ni saa sune rek kóllëre gi nga xamante ni dox na diggante 2STV ak euh, sénégalais de l'extérieur dafa yàgg lool. ba tax na rek fu ci waay mën a nekk wa moo xam réewu Afrique la wala réew nit ku weex yëgal ne ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar di la ñaanal jàmm di ñaan itam réew yi nga nekk yàlla na fa yàlla def jàmm waaye ànd ak lu mën a xew yàlla yàlla sàmm leen ba nga dellu siwaat euh, ci njaboot ndax yaakaar naa ne loolu bokk na ci li leen gënal ñu dellu siwaat nañ nag ni ñu koy defee euh, sa su ne rek tey di samedi euh, le 6 juillet si je me ñu fas yéene ànd ak yéen ci waxtaan diggoon naa leen ko wax leen ne leen ñu danañu dolliwaat euh, beneen émission ci jëmale ko ci li nga xamante ni mooy jigéen ñi tabaski ji woon ak conséquences yi nga xamante ni moom lañ ci gis ci seeni i kër yi goro njëkkee yi ñu nekkal ak yëpp problème yi ñu am ak seeni i borom kër. waaye nag dafa di euh, saa su ne rek wax naa leen ne émission kër gi ci actualité lay dox ci bien-être population bi lay dox ba tax na. gis nañu benn fléau boo xamante ni euh, dafay jëm ci jigéen ñi moo tax ma jëlee teg ko fee parce que nag kuy indi problème di tabaski ji boobu dafa fekk nga tal ko waaye ki nga xamante ni dafa wére di jagadi am na loo xamante ni talu ko te ci ñoo ñu laa bëgg ñëw tey ànd ko suñuy gan gan gi nag kenn ki ñëw na waaye ki ci des mi ngi woon ci yoon bi sama malienne bi maa koy xaar ba léegi incha allahu xëy na du ñàkk dinañu dab ci émission bi waaye ajaratu ndey soxna bàjjanu gox la waxtaankat la tubaarkàlla macha allah war na maa mën a jàppale ci ñaax jigéen ñi ñu delloo si waat seen xel su ko defee rek dama koy bàyyi mu nuyoog euh, mbokki téléspectateurs yi laata ñuy xuus ci waxtaan wi Adja Ndeye maa ngi lay nuyu di la ziar. Mhm. asalaamaaleykum wa rahmatulah Euh, maa ngi nuyu téléspectateur bu 2STV yi ñu ngi lay fay. di leen ziar bu baax baax di nuyu borom kër gi El Hadj di nuyu Adja mm-hmm. ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar macha allah. Mm-hmm. di sant yàlla bu baax nag di jullu ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa ay waajur di leen ñaanal yàlla fi ñuy tëdd yàlla leen fa yàlla. amiin yaa rabbal aalamiin yónnee àjjana firdawsi. amiin yaa allah ak bépp néewu jullit ñu ngi la koy ñaanal. amiin yaa allah di ñaanal suñu sëriñ sëriñ Babacar Sy Mansour. ndeysaan nga xam ne mooy suñu wasila di suñu mudd ci kër Seydi Hadj Malick. yàlla na fi yàgg mu yàgg fi lool te wër liggéey bii mu sumb yàlla na ko yeggaleeg jàmm ak salaam ba jiite ñu ci jumaa ji ay yoonu yoonu yoon ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ma nuyee sama xalif général ba pare mhm. maa ngi ñëw nag Parcelles Assainies mhm. di nuyu unité 1 ba unité 26 1 ba 26 waaw di jël nuyoo bi nag di ko teg ci loxo monsieur le maire Aboubacar Diamil Sané mhm. mi xam te ni moom mooy maire parcelle kilifa gi di nuyu sama délégué de quartier ndeysaan ñu ngi leen di nuyu itam jël nuyoo bi jaarale ko ci sa loxo di wax ne nuyul ñu képp koo xamante ni yaa nga Parcelles Assainies 1 ba 26 euh, toog jàkkaarloog ñun euh, di ñu seetaan di wax ne rek waxtaan wi mbokk yi mën nañ cee bokk jaare ko ci 33 tey defe naa ni yëf yi dina yomb dugg bi 33 823 64 62 Alain defe naa noonu la voilà euh, su ko defee rek numéro bi dinañ leen ko afficher ci au bas de l'écran ngeen mën a dugal seen ci jigéen ñi yi nga xamante ni léegi dañ koy jëfandikoo ba muy exagéré mu am benn produit boo xamante ni dañu wax ne génn na euh, la ñu koy defaree tubaarkàlla macha allah moo jëkk a doy moo jëkk yéeme te euh, gis naa ne jigéen ñi tey euh, am ndam ci sëy wala daan naa wala jommal naa sama borom kër tax na lu ñu mënti jël dinañ ko jël dugal ko ci seeni awra wala ñu jëfandikoo ko di ko naan wala ñu jox ko seeni borom kër mu indi problème yoo xamante ni foo ko natt rek fi ne weesu na. Euh, mu mel ni que bu ñu jógee ci octobre rose dañuy wax ne taux de cancer bi lii la taux de cancer bi lee la te cause bi exactement du ñu koy wax fan lay jóge cause boobu nag moom la ñuy jéem a seet jéem waxtaan ak suñu jigéen ñi. xam naa ne wax naa ko mbokk yaa ngi ci euh, euh, dinañ ànd ak ñun ci téléphone bi. waaye yéen ñi nga xamante ni yéen ay jigéen di sensibiliser. Mm-hmm. yaakaar naa ni dégg nga mbir moom mu ñuy wax tabaabaar la xaw léegi xeeb nañu produit yi nga xamante ni ñu ngi koy def parce man dama leen wax ne leen ne souvent ñi koy jaay ay sénégalais lañ ci réseau sociaux yi lañ koy jaayee bëgg jaral ak bëgg loo xamante ni koom-koom la ci sa yow tax na ba nga dem jéggaani ji wala nga dem mélanger ji produit boo xamante ni yaa ngi ciy gaañ sa nawle bi jigéen. loolu moo tax tey jii sabab waxtaan bi tey sax mënuma leen a ciy invité ñoom parce que pratiquement ñoom ñoo koy jaay ma jël ji woon benn malienne. Euh, defe naa ne Adja Tunkara la tudd euh, su ma juumul euh, Adja Adja Burkina moo ma boole woon ak moom du ñàkk ne mi ngi ñëw ci émission bi ndax jot naa ko sànq mu ne ma maa ngi ci yoon bi ñu ñëw ci li nga xamante ni mooy sunu yëfi cosaan waaye yéen en tant que bàjjanu gox. mbir yu mel nii bu ngeen ko déggee la leen lan la leen di def. xanaa jaaxal ñu rek mbayam mhm. jaaxal ñu parce bàjjanu gox yi. Mhm. Euh, suñu ministère tutelle mooy ministère de la santé. waaw ñu ministère de la santé la ñu àndal di liggéey. Mhm. léegi ci biir liggéey boobu chaque année octobre rose bu jotee. Mhm. da ngay xool ni taux cancer bi. Mhm. dafa gën a élevé gën a yokk. rawatina octobre rose bii passé nii boo nemee centre de santé maam Abdou. macha allah li ñu am ci taux. kenn xamul li ñu am ci ay cas. cancer du col de l'utérus cancer du col de l'utérus. ci butitu njurukaay bi ci butitu njurukaay lu ñu ci am xamuñu nu mu toll bari na ba jéggi dayu mhm. ah di wax jigéen ñi rek ni cancer du col de l'utérus nekk na loo xamante ne ni mhm. néew mu du wër de waaye suñ ko fajee aussi dina am benn séquelle boo xam ne moom la lay bàyyeel la koy bàyyeel dëgg la te mun nga gis man gis naa koo xam ne amoon na cancer 2019 mhm. faju ba yaakaar ne wër na xëy suba trois jours la ko affaire bi daaneel yàlla suñ borom jël ko est-ce que moo tax lu jar a lu jar éviter la yi ñuy def ci suñu kanam yi nii. Mhm. ñun jigéen ñi jar na éviter. Mhm. surtout ma tababar bu bees bi ma dégg. tababar li moom composition bi lan la. moom composition bi dégg naa ñu naan xeme. waaw am na ku ma dégg nag mu ne xeme lañ koy defaree. xeme la xeme ak ak. ak batterie pure batterie pure batterie. batterie boo ko jëlee bu ko xale yi xaree lu ñuul li ci biir. waaw nee ak yamba nee ak yamba bi. nañ jaar ci digg ba rek. waaw dinañ genre ovule yooyu. di ko dugal seen kanam ay bul. ay bul di ko dugal seen kanam mais dans quel but. daf ko genre suppositoire ah, parce que bii bi ni ma ci li ma ci li ma dégg. waaw dégg naa ñu naan am na jigéen ñoo xam dañ leen di xarafal. waaw léegi xarafal boobu ñu leen di xarafal dina tax bu ñu ànd ak seen i borom kër. Mhm. du am plaisir. Mhm. léegi nag nee neen tabaabaar boobu ñoom bu fekkente ne dañ koy utiliser. Mhm. dañuy am plaisir parce que comme genre drogue la. dañuy am bànneex boo xamante ne dañuy am bànneex boo xam ne bu ñu ànd ak seen i borom kër duñ ko am moo tax ñu koy utiliser. mais nag ci loolu bànneex bànneex tamit yaa ngi lor sa bopp. mais mais loolu dafa tax ba euh, bànneex la boo xamante ni loolu ñoom dañ ko réserver pour ñoom parce que ñi nga xamante ni jigéen ñi ñu exciser. Mm-hmm. ñoom ñoo tax ñu koy ñu ñu looloo tax ñu doon ko def. Mm-hmm. mais bii dafa dem ba doon loo xamante ni dafa tasaaroo léegi. am na ñoo xamante ni buñ ko xëyulee jël dañuy am problème. waaw te lan ngay wax ne moom lay faj bokkewul ak li nga xamante ni. Mm-hmm. moom moo am xam nga xam nga man damay wax ne sama sama bëti bi muy door. lu ne jël naa ko su ma juumul am na ku ma mosoon a jox loolu ne ma day faj ay tànk day faj bët ba ci yóor la jëm mhm. loolu moo tax sama jël ci def jii ci def taan mhm. te ki la koy jox ki dafay xëy suba woo la téléphone ne la ndax yaa ngi ci yëg neex neex ma ne ko neex neexub lan yow da ngay faj bët wala neex neex ngay ngay ngay ngay kii mu insisté ci loolu mujj gi dama ko ni jël malheureusement jotuma ko utiliser. Mhm. dama jël affaire yëpp buub dem teg ne. Mhm. parce que y a de ces questions yoo xamante ni bu la ko nit di posé ci garab gum la jox. Mhm. méfie-toi mais dama gis ne euh, soxna si jigéen ñi yëpp liñ ci jublu. des fois wut plaisir lay doon des fois itam yenn produits yi ñuy def ci kanam itam lañ ca jublu mooy daan naa. sama borom kër jommal naa ko. est-ce que jar na ko. jaru ko de dara jaru ko parce que li nga xam ne daf lay indi feebar lor na dara jaru ko gis ma lu ko jar parce que produit bi dama dégg ñu ne 200 lay jar xam nga 300 francs. en tabac bar 200 lay jar naan 200 lay jar. te yaakaar naa 200 francs moom ku koy jël di ko jël ko dugal ci sa biir awra yaa ngi indi sa bopp problème. dara jaru ko nag dara jaru ko parce que maa ngi dégg ma am na benn kii bu ma doon suivre sànq di ko xool di ci jéem a gëstu balaa maa ñëw maa ngi dégg ndaw si. Mhm. mu naan tabac bar nekk na loo xam te ne comme drogue. comme koo xam ne dafa drogué daal. d'accord yaramam dafa dem parce que boo ko defee di nga crampe soo ko defulee di nga wàccu waaw boo ko deful di nga miir ngay feebar te nee soo ko dugalee ci sa kanam ba pare day commencer ci sa tànk yi mel ni luy vivre ci sa yaram da ngay vivre vivre vivre ba benn instant nga doog a taxaw nekk nit te boo ko xasee ba tàmm tàmm nga ko ba pare mënatoo ko bàyyi dépendance nga ci genre drogue la daal dépendance la dépendance la loolu nag ñu ci ñaax jigéen ñi bu baax a baax di leen wax ñu leen loolu moom bu yeboo ko teg ci suuf neex neex ak plaisir góor ki sa jaru ko surtout parce que nag euh, produit yi bari na mm-hmm. léeg nga gis xeme mm-hmm. léeg nga gis ku jël alaam léeg nga gis ku jël day tëj day nangam man gis naa ba gis jigéen ñi di lakk laaj mm-hmm. di ko def suppositoire pour ne lan dafay maye forme xeet yooyu yëpp ñu wasaare ko nag euh, euh, ci ci ci réseau sociaux yi kenn ku nekk jot ci te ni nga ko waxee sànq man damay wax ne gaw ma ni benn plaisir bi jar na ko surtout que am na loo xamante ni produit naturel la ñu am ko dama ko naroon a indi fii sama benn invité bi moo ko naroon a indi ñu tegtalaat jigéen ñi nga xamante ni cosaan la nit ñi daan ko jëfandikoo daan ci am li leen neex mais itam daan ci am seen wér yaram seen wér yaramu njaboot mais bu ñu demee ba toog plaisir tey jii jural la loo xamante ni musiba naaru laay la te nee naa leen waxuma la foofa ci suuf feebar de mais feebar jaxran ñii rek góor bàyyi la ginnaaw dem wuti ji ku feebarul mm-hmm. te mënoo ci dara sàkkaatumaak nag bu foofa feebaree te yéen ay recensé gis ngeen ñi nga xamante ni ay dañu am ay cancer du col de l'utérus ak ñi am cancer du cinq gis nga en général boo ci jëlee cent yow 80 yi seen jëkkër da leen di abandonné ndax feebar bi ñu yor mhm. yen ñi koy recensé loolu nan lay demee waaw loolu loolu mbay loolu moom li nga wax lu am la Mhm. parce que da gis tey jii benn femme bu am bu am problème bu cancer. Mhm. jëkkëram abandonné ko. bu sama invité bi yegsee rek nañ ko dugal. dem xooli keneen. Mhm. dem xooli beneen beneen beneen jigéen. bàyyi sa jabar bi nga xam te ne moom nga àndaloon bi ngeen nekkee xale. mu di la jox plaisir di la jox bànneex. léegi yàlla teg ko nattu tegal dogal ci moom feebar. nga bàyyi ko fa dem seeti leneen. parce que danga naan mënuma ko ñàkk ci suñu société bi moom la ñuy dund. te góor loo xamante ne li jigéen mën a muñ ko. góor mënu koo muñ. par exemple ni ay 10 ans 15 ans. yow mais jigéen góor mënul loolu góor ñu ko mën boo bariwul bariwut góor ñu ko mën mm-hmm. yaakaar naa soo jëlee téeméeri góor benn góor mm-hmm. moo ci mën loolu ñi mën loolu bariwul moo mën a toog noonu waaw moo a toog di muñ d'accord di muñ mais li jigéen mën a muñ góor mënu koo muñ mm-hmm. moo tax nag euh, nit sa wër gu yaram moom na la ko na la ko jaral na la ko jaral daal na na la jaral na la jaral sa bakkan bala ngaa xam njëg sax nga ñàkk nga xam sa njëg gi nga feebar nga ñàkk ko soo feebaree tey jii nga ñàkk sa wër gu yaram ñàkk lépp ngay xam ni wërgu yaram mooy. dara jaru ko feebar mooy mooy noonu doomu aadama. dara jaru ko feebar mooy noonu nit. Mhm. feebar moom yàlla na ci yàlla musal musal ci boolem. amiin yaa rabbal aalamiin mooy tege. mën na ko teg nit mun na ko teggi mais mhm. feebar nekk na loo xamante ne lu metti la lu metti la feebar boo xamante ne nii mhm. dafa ñëw ci sa bututu njurukaay mu wóor na ni yow nii sëy dootoo ko defati parce que en général bu ñu la xasee ba opéré col de l'utérus yaakaar naa rapport sexuel nee ma doo ko am de waaye du du bari da nga ko dootul mën mu ngi noonu dootoo ko mënati d'accord dootoo ko mënati amaana soo defaatee rapport xëy na feebar bi yàlla mun na def mu dekkiwaat mu dekkiwaat daal di lay indil loraange da nga koy defal sax nga dul gis day seeti keneen ku wér mu ngoog numéro baa ngi noonu 33 823 64 62 yaakaar naa ni numéro fixe la ñu tegal leen ko ngeen mën a dugg indi seen contribution dugg bu yomb lay doon euh, su ko defee ngeen indi seen xalaat Alain mu ngi foofu euh, ci li nga xamante ni jigéen ñi léegi xewal nañu ko ñu indi ci benn boo xamante ni dalay leer ni wax nañ ne ne la batterie lañ koy defaree ak xeme ak yàmba man xeme ci boppam euh, nga xamante ni boo xamee raxas gaz bi ñuy defaree xeme nga xamante ni xeme lañ koy defaree boo koy diw ki sa cin di ko nettoyé nga gis ni muy fullee cin li boo ko laalee ci sa loxo bii mu def ci ay temps nga xoos ko der bi teggeeku tegu fële nga bëgg ko jël dem def ko ci sa awra pour lan plaisir boo xamante ni danga koy wut te même bu dul tabaabaar bi sax am na ci yeneen yoo xamante ni tey ci réseaux sociaux yi ruxu jeeg ak mhm. koñu jeeg ak jàddukaay yi jeeg ak lu ne lañ koy tuddee pour lan jigéen ñi war faa mën a jënd ay produits yoo xamante ne danga koy def ci sa kanam te nag daf lay leer ni ki nga xamante ni célibataire la en général sax du koy soxla ki nga xamante ni célibataire dana ko soxla célibataire yu tey mais ki nga xamante ni kenn këram la soxlawu ko en général dañ boo ko gisee rek kër ga wujja la am mm-hmm. tey lay jommal sama jëkkër tey laa koy def nii tey laa koy defee naa te yow da yor sa jëkkër ci kër gi doon saytaaneem mm-hmm. mu génn ci biti dem wut dëm ñëw indi astaghfirullah ci kàddu gi nañ ma baal dem indi indi la kondorong moo xamante ni kenn du xam fu mu jóge nga yaakaar ne yow yaa ko doon jommal fekk booba yow yóbbu ko fenn loolu war na laa mën a jaral nga jël ay produits di ko def ci sa kanam ba indi sa bopp jàngoro joo xamante ni boo woppee mu jàllax la sa ndey mbaa say doom ñuy kos-kosi mbokkaalo waaw euh, sëñ bitur tur bi ak fay woote Oustaz Abdoulaye Seydou Lass Wadiou. Oustaz. Tamsir Khoule. Oustaz Abdou. da ngay déplacé wu un ma ma mën la dégg déggin bi dafa leerul. fan ngay wootee. Oustaz Tamsir Khoule Oustaz Tamsir ah, maa ngi lay ziar bu baax a baax. maa ngi sant yàlla bu baax Khoule. yàlla yaa Allah. allo ndeysaan yàlla na yàlla nangu ñu bokk. mami. waaw. li nga wax lépp dégg na ndeysaan. waaye ñu mucc waaye dama la ñaanal. ndeysaan yàlla na yàlla nangu ñu bokk. yàgg naa la topp dëgg la xule. maa ngi lay baax nde ndeysaan. ma ma déglu maa ngi maa ngi ndeysaan. yaa jëf xule. jërëjëf jërëjëf yàlla na yàlla fay te yàlla yàggal taxawaay bi euh, ñuy jéglu déggante bi euh, leerul mais euh, ku dugg rek nga indi sa participation daf ci am solo ci yi nga xamante ni phénomène la jigéen ñaa ngi ci ci lu nekk man nag li ci kaw sax mën naa ko digérer loo xamante ni mën nga koo def sangoo ko mën naa ko digérer damay soppi yaram mën naa ko digérer waaye nag loo xamante ni ci biir la jëm te bu xasee ba yàqu yàqu na wax naa leen ko la tax nga di ko def jaru ko jaru ko tey jaru ko suba te boo laajoon ñi ko paase nga xamante ni weesu nañu ak ay weesu nañu xëccoo di nga xam ne lii jaru ko kon nañ delloo si waat suñu xel buntu baa ngi noonu ngeen jaar ci ngeen mën a rotal seen xalaat Laye Sarr bu fekkente ne invité bi ñëw na euh, suñ ko mënee installé euh, si je me trompe bu fekkente ni ñëw li tam ñu xaarandi ko rek du ñàkk dinañu dab ñu waxtaan ak euh, yëfi cosaan yoo xamante ni nit ñi mi ngi fii ceeb a ngi fi. waaw aldank goowee ngi fi. Mhm. aldankee ngi fi. Mhm. xob yaa ngi fi mi ngi ci dëkk bi te kutewu la dara. Mm-hmm. mais yow li lay neex mooy na nekk pot su ndaw soo xamante ni dañ naan laan jàddal ci ruq bi. nga jël ko bu guddi jotee nga def ko sa kanam pour plaisir boo xamante ni yow kii nga bëgg a jommal wax naa la ne la bu la nee jommal nga ko it ay théâtre la daaray ko ci la. ñeneen nga koy jommal ci biti. ñoo ah, nga ne. ma ne ñeneen nga koy jommal ci biti ñu dul yow. ñëwal ma góor ñi mooy ñoom lay saar ñii. waaw maanaam kat lañu. maanaam yi jël ñii. waaw du wutal sa jëkkër plaisir wutal sa jëkkër yenn plaisir di ko sa yaram du lor sa bopp. Mm-hmm. yow góor gi mi ngi génn ci di ko uti feneen. la góor gi. waaw li waxkat bi waxoon rek ni. Mm-hmm. góor boo xam te ne du du du doxaan maanaam nañ ma jéggal ci ci ci kàllaama. waaw doxaan amul. waaw mais ku ñu jàppul rek moo am. ku ñu jàppul moom ku ñu jàppagul. Mm-hmm. moo am mais ku fidèle amul amul mais ku ñu jàppul rek. moo am tigi tigi na ñoo xam ne kenn jàppale mais góor bu fidèle. waaw bëriwul. bëriwul bëriwul boobu bu ko weesee si suñu papa yi ñoom suñu papa yi ñoom seen génération boobu mhm. ñooñu moom macha allah mhm. dund nañ dund bu sell ñooñu fidèle nañ mais génération bii léegi nii waaw macha allah góor bu fidèle amul léegi mu jaral la nga war a man a rey sa bopp dara jaralu ma ko nag te wax naa la ko li tax ma ne boo feebaree dañ la yotaat sa ndey mhm. temps yi maa ngi boo xamante ni dinaa ci ñëw ndaw si bi nga xamante ni feebar dal na ko ci la ko jëkkëram jël delloo yaayam ba pare nag daf ci kaw feebar bi commencement feebar bi sax mu waroon ko jàppale faj ko wala dara mm-hmm. dafa dem takki jabar ndaw si malade mental la mu ngi dëkk euh, géeje waaye su ma juumul mi ngi may dégg mm-hmm. enregistré naa ko et tout mm-hmm. euh, malade mental la borom këram wëlbatiku teg ko loolu ba suñu jonn yàlla tey fukki at ak nangam mi ngi tëdd benn place da ko delloo ndayam ndax kooku jaroon na tey jii muy jël dara di ko def ci kanamam pour am benn plaisir bi dara jaru ko jaru ko dara merci beaucoup parce que tey jii tey jii bu fekkente ni yow yaa ngi mm. jël yooyu di ko def mm-hmm. gis nga nit da ngay xool sa njaboot surtout njaboot dafa nekk loo xam te ni surtout maanaam nga yor ay xale yu ndaw waaw bu la dara jaral ci àddina ngay sacrifier sa di sacrifier sa bopp ndax plaisir ndax nit léegi soo paree na nga dem yàlla tere nga génn àddina ci feebar bàyyi fi sa njaboot doo xam naka la ñuy nekkee ca dëj ba lay commencé lu xool ci a uuf njaboot dëj ba lay xool ki nga xam te ne fa la war a dem sumi ay baraakiisam war fa xool ñëw mu ñëw war a uuf uuf njaboot gi bu ko defee yow nga perte yow dem nga sa njaboot sonn dem nga sa njaboot maa ngi bëgg mbëkk miir yi ndax jigéen ñi mbokk ngi ci ligne bi ñu jël ko allo allo salaamaaleykum waaleykum asalaam wa rahmatullah soxna si ñu ngi lay ziar maa ngi delloo bi ak fay wootee man maa ngi wootee Pikine. Pikine yow rek la ñuy déglu allo allo. allo yaa may dégg. waaw maa ngi lay dégg ñu ngi lay dégg bu baax a baax. waaw man li ngay wax daa am solo man sama yaay ñoo toog nii di seetaan mais li ngay wax daa am solo trop trop trop. ndeysaan. waaw man moom je n'ai que 27 ans. Hmm. dugg naa ci sëy ba génn. Hmm. malheureusement mais yu bëri yi ngay gis. Mhm. c'est vraiment pénible sincèrement. ouais. parce que góor bi ngay dajal yéen yi ak ki ngay defanteel yéen nii. waaw. da ngay sóoraale ëllëg am na. bu la boo woppee rek mu wàññeetu la. balaa balaa balaa loolu sax yow da ngay da xalaat ne te bu njëkk ba am na ñoo xamante ne li ngay daj nii yëpp ñoom dajuñu ko woon te pourtant garder nañ seen jëkkër. garder nañ seen jëkkër voilà. surtout yow na li tamit di ci sonn. Hmm. mën na am sa doo fa toog. dëgg la doo fa toog. waaw wallaahi dëgg la li ngay daj daju ko ci mu ngi toog ci néegu seem donc je pense ay plaisir yi nga ciy am ak yooyu noonu yëpp c'est pas c'est pas facultatif c'est important parce que moo la ko yóbbu. Mhm. mais bul mais mais dafa am loo xamante ni plaisir la mi ñu fi woon démb ak te daawuñu jëfandikoo yi. moo ma jaaxal suñu maam suñu. c'est ça mais ñun comprendre ñu loolu dama yaakaar ne ñun dañu dañu conscient wul. loolu c'est ça. koo si gis mu ngi ci marché yi di dàqante boo ko laajee loolu. lu ne nga jàmb ko lu ne nga naan ko lu ne nga diwoo ko. wallaahi. dem nañ ba léegi laalo dégg laalo sax dégg naa ko. <laughs> laalo bati laalo. ah loolu de jarul nañ ma baal tey émission bi interdit au moins de 18 ans. waaye nag laalo sax mi ngi mi ngi fi léegi. léegi ñoom cere laa yërëm fan la ñu jëm. ak bisaab bu xonq sax bisaab bu xonq. bisaab bu xonq aussi neneen dañ koy def xatar. <laughs> soxna si kontaan naa maa ngi nuyu sa yaay bu baax a baax. maa maa ngi leen di remercier ci participation bi. merci beaucoup yal na yàlla jàmmal la. buntu baa ngi noonu ngeen jaar ci su ko defee rek euh, ngeen dugg rotal seen xalaat ci jigéen ñi man xaw ma dañu perdre connaissance léegi xaw ma li astu di wax naan kii kii. qu'est-ce qui se passe dans ce pays. lu ne la ñuy jël lu ne la ñuy def pour lan bànneex boo xamante ni. Hmm. sama deuxième invité ñëw na la malienne maa ngi koy nuyu. di la bàyyi nga nuyoog euh, mbokki téléspectateurs yi. dama la force ba nga ñëw fii far force olof ngay wax tu vas parler olof par la force. Euh, je salue tous les sénégalais et tous mes parents maliens aussi. Mm-hmm. donc euh, je m'appelle Khady Samaké. Khady Samaké. madame Diop. madame Diop. oui Khady tu étais où. bon malheureusement j'étais à Diamniadio. Mm-hmm. pour récupérer accompagner ma nièce à récupérer son diplôme de fin d'année. d'accord c'est pourquoi tu es en retard. mais tu es euh. loo ñu indal loo ñu indil. Euh, ceeb karité waaw goye mhm. ay fey yi d'accord dafa am loo xamante ni mm. cosaan la dama bëgg jigéen ñi ci wàllu boppam mm. bàyyi ko xel parce que actuellement y a pas mal de produits yoo xamante ni jigéen ñaa ngi koy jël di ko def ci seen kanam mm. te vous yéen en tant que malien émission bi concept bi olof la. Mm. te dégguma tubaab dama fi bañ a def erreur bu ñuy dagg di dugal ci TikTok bi. <laughs> di di ma challenge. Mm-hmm. Euh, euh, euh, yéen en tant que malien. Mm-hmm. dafa am loo xamante ni seen cosaan la. amul dara loo xamante ni da ngeen koy jëli ci àll ba. Mm-hmm. di ko jëfandikoo pour seen mariage war a mën a neex. ci cosaan ngeen di dellu. d'abord bu ngeen mayee nit mu seyee lan moo doon seen secret bi nga xamante ni moom ngeen koy accompagner. ceeb ceeb. waaw ceeb rek. ceeb ak mbokk. ak mboq. mboq bu ñu wol bu seew. seet bii sëy kër jëkkëram. kër jëkkëram. waaw. ceeb. oui. Euh, kii sunguf euh, ndiir. Mm. ak euh, ndugub. dugub ndugub. du mil. le mil. Mm-hmm. le mil. oui. bon on écrase on fait comme genre riz. waaw. avec des ceeb et des goyé. Mm-hmm. avec le mboq. comme on dit la le maïs le maïs, le mm. maïs oui. en petits d'accord c'est comme ça on donne aux femmes. c'est soit c'est ça qu'elle doit manger toute la journée ou bien. toute la journée à partir de 17h elle bouillit ça elle boit. Euh, loolu lan lay def ci yaramam. qu'est-ce que ça fait ça ça répare le corps. Et ça l'empêche d'avoir des infections et puis ça donne aussi elle va tomber vite enceinte. d'accord. Eh, oui d'accord d'accord voilà et le bonne odeur. donc composition boobu am na solo. oui xet bu neex. Mhm. di nga gaaw a ëmb. Mhm. te it dafay réparer lu baree bari ki sa yaram. dafay raxas sa butitu njurukaay. voilà d'accord euh, ginnaaw loolu gis naa itam bëgg ngeen karité. Mhm. Euh, dafay defar seen teint. sëyukaay bi dañ koy dañ koy jëfandikoo. Euh, karité bi naka lañ ko mën a jëfandikoo parce nag man jigéen ñi. il faut ma génne leen ci yoon bi ñu nekk ñu tegu ci yoon bi nga xamante ni moom la ñu xamoon yoon bu baax bi carte bi naka lañ ko mën a jëfandikoo ba def ko suppositoire dama koy gis ak nepp-nepp ñu di ko def mm. ndax yéen malien dañ koy dangeen koy def en tout cas moi je vends des produits je déconseille de mélanger les karité avec d'autres produits et les faire suppositoire ah kon karité bi ñuy wax ne dañ koy bateeg nepp-nepp baaxul baaxul si man en tout cas je le conseille pas le vends damay jox karité naturelle si si tu veux on va le moch pour te donner tu fais suppositoire tu le congeles tu peux le faire. ah bi lañuy moc waa waaw naturelle ah, ah, façon karité boobu mu ngi fii. mi ngi fii. génneel produit ma xool nga tegal ma ko fii ci taabal ji. chéri d' accord pañ kon kon pañe bi dafa sori pañe bi <laughs> d' accord après Lay Sarr. Mhm. boo mënee lijjanti noo xamante ne noonu laay jotee pañe bi parce que bagage yëpp il faut ma indi ko. ndax nag bu ñu seetaanee bay. wasaare loo xamante ni ci réseaux sociaux yi gratuitement loo xamante ni luy gaañ jigéen ñi la des fois sax jigéen ñi ni mu ko waxee ñàkk am doom bi dafa bari léegi dafa bari sëy naa nangami ak aw ma doom te bu njëkk ba boo nekkee jigéen ñu jox la sa borom kër ca déwén sa rek da ngay daaneel doom mais léegi dafa jafe peut-être produit yooyu ñu utiliser mën na doon la cause planning tam damay planning parce que bëgguma am doom léegi itam mun na doon la cause mm-hmm. ñu jël ki ci ligne bi ñu installé ma pañeem bi allo allo. allo allo. asalaamaaleykum. maaleykum sama sëriñ maa ngi lay ziar tur bi ak fooy woote ziar tur bi ak fan ngay woote maa ngi lépp tur bi. ah. ngi lépp tur bi. Euh, boo ma mën a yokkal retour bi tuuti parce que dégguma ko. waaw maa ngi lépp tur bi maa ngi lépp tur bi. da ngay tur bi. waaw maa ngi wootee Ndiaga Niang. ayca yow rek la ñuy déglu na kàddu gi gën a leer tuuti rek. Mm-hmm. ziar naa ziar naa bu baax a baax. ñu ngi lay delloo ziar. waaw di leen sant di leen gërëm. Mm-hmm. émission bi nag am na lu ma ci dégg am na lu ma ci dégg am na lu ma ci déggut. ah. na am na lu ma ci dégg am na lu ma ci déggut. am na loo ci dégg ak loo ci déggul. waaw waaye am na lu ma ci déggut. d'accord. waaye bu dee bu fekkee pour ay yar ko yar yarin xale yi. Mm-hmm. Ah, loolu faay faay am na faay am nañ ci seen wareef. faay am na ci. seen wareef. allo. faay am na ci seen wareef. d'accord. ndax nit mënoo jur nit ba pare ma tax la. Mhm. loolu mënul ne man vidéo boobu noonu ah gars di coow yëpp man yàlla da cee def man ba yëpp. Mhm. man dama yaakaar sax nekkul senegal biñ ay wallaay di wax rek lañ jéem a ñaaxal yi ñu xam àddina àddina àddina yeggut. Mhm. tey rek nga xam waaye xamoo suba. waaw tey rek nga xam waaye xamoo suba. dëgg la. na nit ci delluwaat seen xel nga xamul baneex bu ne day jeex. mu hmm. ne baneex bu ne day jeex. wallaay wallaay baneex day jeex. a gàtt sax ñoom ak a gàtt ñoom hmm. xamuñu ci loolu. dëgg la. ñooñu delluwaat seen xel seen xel seen doom ñu yar leen yar bu baax. booy hmm. jëm booy jëm moto booy buy dem rek nga lijjanti ko fa xam ko. mais nga bàyyi ko mu dem sa yoon ne ko ci heure ba mu ñëw baax lu mu def itam mu yàq après. dëgg la dëgg la am na solo am na solo bu baax a baax a baax. lépp éducation la lépp yar la wax na dëgg ca commencement ba nañuy yar njaboot gi na ñuy yar xale yi boo ci dugalee néeg itam am na eh, éducation boo xamante ni boo ko defee ci sa doom eh, am na yoo xamante ni eh, du ci mës a dugg benn yoon waaye tey éducation de base waaye tey jigéen ñi mhm. seen duus yi lu ne nga ca donj bu ne nga ca xeer bu nee nga ca tàngal plaisir yaa nga ca lu ne nga ca man daal man man daal dama dul xam sax fu may commencer. maa ngi li li sëñ bi génn léegi wax. waaw am na importance éducation de base dafa baax ci doomu aadama baax ci doomu aadama. nit da nga yar sa njaboot mais jamono ji toll na foo xamante ne léegi. da ngay yar sa njaboot ba yaakaar ne yaa ci nekk. da ngay yar ba yéeg tëdd. yéeg tëdd ci sa kaw lal sa njaboot génn. dem Amérique suñu la nee def nañu lii wala lii danga naan sama njaboot. def mi ngi ci biir néeg bi nga ci Amérique. fekk xale yi li ñu xam ci réseaux sociaux yi xam ko ci seen téléphone yi xam ko ci portable yi. li yow sax xamoo ko seen yaay xamuñu ko. déedéet loolu bokk na ci li nga xamante ni moo gën a yàq gis nga tabaabaa bi. waaw réseaux sociaux yi ñoo ko gën ñoo ko gën a tasaare ñoo gën a tasaare daal maanaam. d'accord ñoo gën a tax te sénégalais dafa dañ kumpa. waaw sénégalais moom loo waaye jël leen te yab ci rek. yab leen ci rek loo nii rek nga dem nga dem jëli ji ko ñëw utiliser ko. daf ko sa kanam mu indi la feebar nga lor sa bopp lor sa njaboot waxuma la dara rek cancer nekk na loo xam ne maladie boo xam ne dafa kuta. am na koo xamante ne sa alal day jeex sa alalu famille day jeex bu dee sa jëkkër da jàppale sa alal yëpp day jeex. tey jàppale te doo wër dañ lay jàppale ba sonn te doo wër am na am na ku ma expliqué nee na ma. Mhm. cancer sax dafa gën a sori. mu ne ma demal ci xew yi rek nga xool jigéen ji ci toog ci chaise ba jóg bu jógee. ñi sàggan mhm. da ngay xool ne seen ginnaaw sër yi. day ko tamiku mhm. tooy xep. infection te li ko waral du dara lu dul euh, yow bëgg ngaa daan. waa euh, ami. Khady. Khady <laughs> ana ana ana karité bi. Bon, D'accord. Ça dépend des malconsommations des produits. D'accord. Il y en a qui mettent des cristals. Des cristals. Ils dans le, des produits cristal pour boire. Cristal menthe bi. Pour boire. Pour naan ko. Pour naan ko. Mais day faj socc. Day faj socc mais c'est pas comme ça. D'accord. Le cristal c'est pour faire le traitement des cheveux e les massages. Mais pour soigner le maux de ventre e le socc la ouais. tu dois pas il faut les d'accord da nga ko war a noyyi. Mhm. donc produit lañ ciy defar pour massage ak traitement de cheveux. Oui. te pourtant ñu ngi ko def ay pot yu ndaw du taxaw. pour fu nekk lañ koy jaay. waaw pour mettre dans le lait boire y en a place ça moi je dis placer. Ah. avec ah. tout ce qui fait le cristal. ak ni mu fooree. waaw ah, c'est léegi xeeb nañ parce que cristal lañ jëm. waaw mais ça quand fait ça. si tu as mal au ventre tu le cristal dans l'air tu bois cinq minutes tu vas sentir que quelque chose est sorti. ok boo bu sa biir dee metti nga jël dametu cristal def ci meew naan. Mhm. da ngay sentir na am na luy génn ci yow. day faj mais c'est pas parce que c'est saf-safal ça moom c'est déconseillé. donc. karité kenn du ko booleeg nepp nepp kenn du ko booleeg dara. dara mun nga ko jël ñu mocc ko. def ko bul. bul euh, euh, euh, su ko defee ñu def ko suppositoire. Mm-hmm. bu boobaa suppositoire bi lan lay def ku jigéen ki. day day la jóg bon tu vas sentir plaisir ton mari aussi la même chose tu seras man bu ma tudd ay mari <laughs> man wax ma sa bopp man jigéen jéem a ñor man bu ma kenn tuddal ay mari. <laughs> ñoom lay saar ñi nañ jàll fële. <laughs> cari waaw si tu le mets en suppositoire. Ouais. c'est naturel. d'accord naturel. naturel carité naturel. que ça soit noir que ça soit blanc mais que ça soit naturel tu fais des suppositoires tu peux le faire à temps avant timis maintenant da ngay def boule nga def ko ci frigo bi frigo bi day congelé. ba mu congelé. Mhm. nga def ko suppositoire. oui ça c'est conseillé. mais bu ma bu duggee foofu du wàccaat. non non. du nin di wàccaat. non non. ah. ça te mais kanam moo nekk loo xam ne dafa sensible. ça c'est sensible. kanam dafa sensible sensibilité boo xamante ni. waaw yow en général boo demee ci gynécologue bi bu lay bu lay jox ay par exemple ay bain yi nga war a raxasoo sax dana naan raxasal sa kanam ci kaw rek. mais sa loxo bu ko dugal ci biir. parce que xam nga loxo dafa am. ay microbe ñii dañoo toggukaay ngi noonu xam nga loxo dafa am microbe. waaw léegi sa micro loxo yooyu am microbe nga jël microbe yi jël dugal sa biir kanam di ko raxas di nga wàcc fa benn. benn ba benn bu ko defee mu daal di mu daal di lay jox infection urinaire léegi nag nga sàggan ci infection urinaire boobu mu dem nag ba indil la problème mu cancer du col de l'utérus mais daal jigéen ñi daal cancer du col bari na ci dëkk bëri goo xam ni ñun jigéen ñi ñoo ko mën a xeex ñoo ko mën a wàññi ñi koy wax it cause bi nañ koy ah. wax nit ñi ñun ñoo ko mën a wàññil suñu bopp wàññil ko suñu bopp ñoo ko indil suñu bopp parce que ñoo koy wéetoo ñun ko indil suñu bopp ñoo koy wéetoo c'est ça ñun lay lor c'est ñoo ko ñoo war a ñoo war a ñoo war a xolaat suñu bopp bu baax xolaat suñu toogaay da xale yi naan xolaatal sa toogaay xolaat sa doxalin mm-hmm. loolu jigéenu Sénégal war nañu war nañu war nañu di di di di xool seen toogaay xool seen ay jëfin bàyyi defante Sénégal parce que yow tey boo amee. lu ko dal defante sama wujj bi moo ayee tey bu subaa nga xëy dem marché jël cent mille francs dem jënd ay ay cristal ak ak yéen am na ñoo xam ne dama yàlla baal ci wax ji dañuy jël cristal mante bi si ni ma dégg de dañ naan cristal parce balaa may ñëw fii dama gëstu ba mante cristal boobu muy wax naan day faj biir bi métti mais am na ñoo xam dañ koy sax di ko saxee seen awra jëkkër ñu baal ma hmm. waaw ndaw liw waaw yooyu yëpp dañ koy def yooyu yëpp dañ koy def. te impuissance lay jural. pour ñu góor jigéen ñi dañu xoolaat suñu impuissance lay jural impuissance lay jox ko góor ñi c'est vrai que wax nañ ko. ne c'est très dangereux parce que seddaay boobu ak mant boobu. loolu loolu loolu mën na indil impuissance ki nga xamante ni mooy mooy ku góor kon donc na naturel. yow daal bul xool góor gi li mu bëgg parce que góor ñi am na ci yoo xam ne ñoom tamit dañu am ay faiblesse yooyu. Mm-hmm. li mu bëgg xoolal li nga xamante nga xamante ne ni. moom la charia sant. Hmm. xool li la diina sant si sa diggante sa borom kër. boo waxee ñu naan diggante jëkkër ak jabar. lu ne dagan na ci lépp dagan na ci. mais am na loo xamante ne charia sant na la fi nga xamante ne. bis bu ko feebaree. foofu nga war a mais est les hommes là aiment ah. les femmes qui sont trop serrées là. parce que ça aussi ça hydrate ça ça te fait gratter. ah, ah. d'accord ah ah des choses des produits pour être encore en jeune. tu n'es pas jeune. waaw tout ça c'est ça qui amène le problème. d'accord il faut être naturel. comme parce tu que da ngay bëgg a tëju. voilà da bëgg a tëju. fermer complètement. waaw mais ils sont paresseuses de faire bouillir les médicaments et boire. comme comme comme comme quel genre de médicament. comme comme le ceeb toujours ou bien toujours. il y a les feuilles comme ces genre de. Ah, feuilles ah d'accord d'accord euh, le ceeb aussi dafay def loolu. day def loolu. d'accord tant que tu bois le ceeb tu ne seras pas ouvert comme ça. mais ils sont paresseuses. ils mettent dans le lot seulement bi. ceeb bi si tu peux le boire ceeb seulement. da koy baxal wala. baxal il faut le baxal baxal bouillir bien même. d'accord jusqu'à l'eau change de couleur jaune. d'accord. oui maintenant tu passes la journée. à ñaata takk par exemple nga jël benn takku ceeb nga def ko ci un litre ndox. un litre ndox nga baxal ko di ko naan. d' donc euh, ceeb bi kese rek jigéen bi mën na ko jël. mën na di di ko naan. mën na ko dimbali ci lu baree bari. te du ko jurul jural benn problème. non mais dama gis ne des fois dafa am ceeb yoo xamante ne dañuy wax ne bii dañ ko mocc. mooy bii am wëñ gu weex geeg nangam sangam des fois dama koy faral di dégg. Mm-hmm. Euh, lan mooy différence bi. différence bi mocc bi. Mm-hmm. on fait on peut faire l comme on dit mocc c'est le mhm. récit mhm. mais c'est les filles qui se marient mhm. D'accord. Quand tu te maries ta si elle ne connaît pas elle peut aller voir une vieille waaw va faire le ceeb là avec de laxas avec des récits pour la fille et son mari d'accord pour leur euh, pour que le lion soit bien soudé d'accord donc en tant que tu bois ça pour lu defar diggante bi de bi gën a neex quand bois ça il n'y aura pas de divorce donc nopp la nopp la. d'accord sa mocc bi c'est nopp. d'accord parce que quand il boit ça il y aura pas de divorce. est-ce que c'est seulement les vieilles qui font ça ou bien. moi-même il y a d'autres femmes qui font ça maintenant parce que quand tu apprends tu peux le faire. d'accord. oui moi des Maliennes qui fait ça. d'accord pour les nouveaux mariés. d'accord donc yow ñoom sa produit ci ñoom nga koy jëlee. oui ñëw indi ko à mhm. mais am na ay xeetu xob yoo xamante ne aldanke. dama gis ne sax bari na ci jigéen ñoo xamante ni bu ñu koy jël. en général daf leen di defal sax dañuy nef. Mhm. parce que bu ñu naanee aldanke bi dëgg dinañ sentir ne am na ñoom tamit lu génn ci ñoom ba mm. nettoyé leen ba ñu set. Euh, euh, te yooyu yëpp dafa nekk loo xamante ni itam remède naturel la ñun ñoo ko moomal suñu bopp. amul benn danger mosoo dégg ku ñu leen dafa am cancer du col de l'utérus ñu ne aldanke moo ko teg. Euh, donc lan nga ñu ciy waxal. ah c'est ça aldanke. Mm. les jeunes filles ne doivent pas boire aldanke. d'accord ki musul sëy. voilà mais mais. lu tax. parce que elle n'est pas encore en état de boire la aldanke. Adanké, ah, quand tu bois il faut avoir un bébé après l'accouchement tu bois ça nettoie le ventre c'est pourquoi ça c'est vite d'avoir un autre bébé mais je vois des femmes ils prennent ça ne day raxas bi day raxas donc on ne doit pas continuellement prendre ça non non seulement après, l'accouchement ou bien après les règles oui après les règles quand tu es marié mais les filles n'ont pas besoin de d'accord les petites filles qui n'ont pas de mari n'ont pas, besoin d'Adanké d'accord donc ñi am jëkkër même même si su fekkente ne yow passé nga am doom. Mhm. quand tu as dépassé l'âge d'enfanter. Oui. est-ce que tu peux prendre de temps à autre. al danke de temps à autre si tu vois les. surtout règles, les femmes ménopausées. ménopausées les moom n'ont pas besoin de al danke. d'accord les ménopauses toujours c'est le ceeb. c'est le ceeb. pour combattre les bouffées de salaire. Mm-hmm. D'accord. Oui, il y a d'autres feuilles aussi, tu peux prendre comme ces genres de feuilles. Même si tu es euh, monoposé, tu as un mari. Oui. Tu peux bouillir ça et boire. Ça augmente euh, les, les, D'accord, d'accord. Euh, ça, ça c'est des feuilles de quoi Ça, c'est le feuille de. On dit en bambara tchekalafere. Tchekalafere mm -hmm. Tchekalafere, dina xadde. Tchekalafere, euh, nga ne mom lu muy def noonu Ça, euh, comme ils cherchent les menthes là. mais les menthes c'est dans le feuille mais ils ne servent pas. ah d'accord ça c'est mentholé donc. ça c'est mentholé naturellement. ok feere ah déet yema gënoo soxla cekele feere ma il faut goûter. d'accord je goûte les feuilles. d'accord c'est c'est mantelé. c'est vrai c'est vrai qu'il y a un goût tu bouilles ça pendant combien de minutes. pendant à dix minutes. dix à quinze minutes. oui après euh, tu bois ça. tu bois ça. le soir un verre par soir. un au coucher. au coucher à chaud. à chaud à chaud. d'accord. donc, tout le monde toutes les femmes peuvent boire comment ça s'appelle. Tsekalafere en bambara. Tsekalafere en bambara et en français. Bon, j'ai pa cherché le nom en France. sa <laughs> vient d'où? Ça vient du Mali. Du Mali. Le nord du Mali. Uniquement du Mali. Oui. Ah, bàyyi mbuus mi yow. Il y a sa petite sœur qui habite à Kaye. Oui. Elle s'appelle Mboya Wade. Mhm. Sa sa petite sœur Ndeye Adjuma Wade. Mhm. Ah, maa ngi leen di wax nañ ma jëndal cakale fere de indil ma ko. Ah, cakale fere dina xat ci dëkk bi. Moom Mali lay jógee. <laughs> Ah, c'est mentolé. C'est mentolé. Tu vois que c'est mentolé mais c'est naturel. Moom lan lay def ci jigéen. Ça sa répare beaucoup de choses sur les filles. D'accord. D'accord. ça, ça donne la, la bonne odeur. la bonne odeur ça resserre. ça resserre ça te donne du plaisir. du plaisir et puis ça donne du plaisir aussi oh, d'accord. et ça t'augmente le de le libido du gars ou bien de la fille. de la femme de la fille. ah ou. Euh, Blaye Sarr baal ma de <laughs> Alain 33 823 64 émission kër gi ah. Euh, tubaarkàlla macha allah ñu indil leen ko nii ci plateau bi. Euh, boo dindee dara sénégalais boo ko dindilee dara da fay teg dara. dañ fi dindi euh, mante bi. mu indi fi cakala feere la xaw ma. ñu jële fi li nga xamante ni mooy tababaar. mu indi fi karité boo xamante ni bu nu mocc la. am na yeneen ak leneen cepp yaa ngi fi goowe yaa ngi fi nañ ma ñëwal ci goowe ak digije xam naa temps bi léegi mu jeex ñu jël kooku ci ligne bi allo. allo allo. allo la. ça va. ak fooy wootee. allo allo ma ne tur bi ak fay woote. maa wootee. yaa ngi wootee. Dakar. Dakar soxna Asou yow rek la ñuy déglu. waaw man de li ma nekk di seetaan seet. Mm-hmm. dëgg la mbaa mbaa yow doo jël ci yi jigéen ñi jël rek. ah. ma ne yi jigéen ñi jëfandikoo pour pour pour bànneex mbaa doo ko jël rek. non du pour bànneex mais pour mën a raxas biir bi pour amee doom. ah d'accord lan la lay conseillé. waaw après incha allah dinaa joxe numéro waaw su ko defee ngeen woo ko directement mooy gën a gaaw parce que temps bi dafa jeex. incha allahu taala. voilà ku am doom ba pare lay laajte pour lu mu war a mën a jël pour mu raxas biiram incha allah euh, ci jeexitalu émission bi dinaa joxe numéro bi parce que jigéen ñi dañu koy soxla mhm. te fu ñuy taxawee di def promotion pour lu bon nit ñi di ci loru ba tax ma jóg jël ci initiative bi mhm. yaakaar naa ni teg leen ci yoon boo xamante ni dinañ am ay conseil dinañ am loo xamante ni seeni produit la jëfandikoo ko ba nga xamante ni du ñu am benn problème mhm. euh, lan nga doon wax soxna si waaw li ma doon li ma doon indi ci produit yi mu indi parce am solo parce que li ma jaaxal suñu mag ñu njëkk ñi suñu yaay yi. yii lañ xamoon ñoom yii lañ xamoon. dëgg la moo tax feebar bariwul woon ci ñoom. dëgg la daawoo gis cancer bi ni mu melee nii law a law ba law ba tubaar tubaarkàlla macha allah. bari mhm. amul woon ci suñu yaay. dëgg la moo tax kon nit ñi nañ delluwaat ci cosaan. Mhm. delluwaat ci ceeb beeg aldanka beeg ak eh, cekale feere bu bees bi. Mhm. ak carte côté bi ak carte côté bi. carte côté ñu at suñu bopp defar suñu yaram. d'accord parce yii soo ko yéen nañ ci mën a dimbali de. ci communication bi yii nii. Mm. waaw amaana euh, tooyaay bi ñuy wax ne da ngay toog. doy dugg tooy du la dal. dëgg la yaa ngi utiliser yii. infection yi du la dal. yaa ngi utiliser yii. say kanam dina tëju. di nga am xet bu neex. te macha allah sa jëkkër bu àndeek yow. dina am plaisir bi mu bëgg yow tam di nga am plaisir. dina bëgg kon nag nañu bàyyi waat nañu bàyyi tabaaba bàyyi saf safal yi bàyyi mantole yi. ay alaam ak yu ne. ba dellu delluwaat ci cosaan bi. te nag jéem a faj suñu bopp. te nag surtout. Mhm. Euh, xëy na waxtaane ko day xaw a jafe jaay ko day xaw a jafe ndax man déjà. nii maa ngi bëgg communiqué mais maa ngi dugg ci domaine yoo xamante ni détail yoo xamante ni du koy bëgg sax di tudd. Mhm. mais ñàkk kersa gi ñu koy jaayee. ci réseaux sociaux yi te ñu am ci suñuy doom. man bu ma toogee ci réseau sociaux ba jigéen taxaw franchement sama sama nit la sama lépp la. Mhm. Euh, xale bu ci jëfandikoo mag dootoo ko bàyyi xale yépp war a mën a dégg loolu vraiment yooyu c'est des messages yoo xamante ni nañ ci bàyyiwaat xel ñu xam ne euh, image dafay des mhm. gis nga ñun bi ñuy commencé ci tele bi boobu sëyuñu mhm. bu ñu fi doon wax yu ñàkk kerse pour bëgg buzz mhm. kon du ñu ñemewaat toogaat fii di rectifier waat suñu wax te wax ya woon mu ngi fii ba tey te dara jaru ko li nga war a am danga koy am donc nañuy rafetal wax yi rafetal kaddu yi rafetal jëf yi yi ñuy jox nit ñi ñu gëm ko parce que c'est c'est très important c'est très important les parce filles, que a... les aujourd'hui je leur comprends pas ça. oui ça c'est quoi en wolof c'est naajo. naajo oui. naajo naajo là. waaw une femme qui utilise ça tu n'as pas de problème. ko ko naajo men. naajo lui. comment ça. mais il faut acheter un naajo tu coupes seulement tu vas bouillir tu bois. chaque jour il faut le boire. avec la peau. avec la peau et tout et les tout. graines et tout. et tout ou tu prépares avec ceeb au de jeter il faut le manger. ok nga baxal ko naan. waaw. lan la lay def qu'est-ce que ça te fait. ça c'est tout ce que tu cherches. mi ngi ci naajo mm, mi ngi ci naajo. Ablaye marché Yoff dina xat naajo mi. ma naajo. et puis c'est plus moins cher ici au Sénégal. te personne ne l'achète. des fois même on l'oublie. on l'achète pas on le jette moi j'ai vu une femme cinq cent comme ça cinq ça veut dire un c'est cent francs. cent francs tu es guéri. tout oui. ce que tu cherches est, est... dans la radio. ça combat de maladies. non vieux. on dit que <laughs> ça c'est un fait que les Ivoiriens les Togolais les Béninois ils préparent avec ça les quatre côtés. les quatre côtés oui. oui mais eux, ils bu buy ça ils boivent après l'accouchement ils Euh, quatre côtés. quatre côtés ça soigne beaucoup de choses. il a beaucoup de vertus. vertu comme Naajo Naajo aussi il a beaucoup de vertus moi je suis pas médecin mais quand j'entends les vieilles les vieux Maliens euh, les vieilles parler de d'un produit. Mm. je l'essaye j'achète je le fais et je vois le ce qu'ils ont dit. ngeen bëgg ko ak digije ñu bari dañuy yaakaar ne dañuy ngëb goowe gi tibb ci loxo bu fees baxal uh-huh. da daal di naan moom nan lañ ko war a jëfandikoo moom goowe pour jigéen ñi goowe yaa un antibiotique mm-hmm. antibiotique la oui d'accord. mais il faut mesurer le dosage deux fois. Okay. d'accord quand pour boire il faut prendre cinq ou sept goyées seulement. sept graines sept graines de goyées. mm mm-hmm. ma defe ni nit ñi dañoo war a ruur seen loxo ba mu fees dell. <laughs> <laughs> xam nga man sama classe gi dañoo ëppal. waaw mais gooyee c'est déjà amee quand c'est beaucoup ça ça va exagérer. c'est déjà ça sent pas c'est pas doux. d'accord donc sept cinq goowe. ou sept goowe. ou sept goowe digije bi. digije aussi digije peut-être cinquante grammes. cinquante grammes. lu mel ni sa loxo rek. voilà tu peux le que est ce qu'il y a possibilité de mélanger les les le gowe et le digijé. sur un litre d'eau non non d' accord. ça va pas peut le gowe tout peut partir avec ceeb. d' accord gowe et ceeb. oui ou bien digijé mhm. que les deux en tout cas mu ngi noonu li ñu li ñu am bari na li ñu moom bari na mhm. te bànneex lañ ci jublu comme jaral nañu ko satisfaire góor jaral nañu loolu mhm. rayante maa ak maa géré maa ko jommal jaral nañu yooyu mhm. dem leen ci produit yi nga xamante ni moom la ñu moomal suñu bopp ngeen di ko jëfandikoo ngeen woo ko mel ni xadi euh, euh, euh, bu ko defee dina leen teg ci yoon bi produit yi tubaarkàlla macha allah xëy na euh, euh, yaa ngi tëngeej non. maa ngi tëngeej. Euh, takko cité takko 30 mètres. 30 mètres bu takko bi. oui d' yow sori nga sori woo Fatou Thiam. ak Assou Diallo Ndeye Déthié dinaa leen fa yebal incha allahu taala. waaye balaa boobu dinañ joxe numéro bi. soxna si en tant que bàjjenu wax man dama lay remercier parce que nag. à chaque fois dangay jàpp ci émission kër gi te li ngay indi dafa am solo surtout nag nga nekk koo xamante ni tubaarkàlla jot gi sax mayu la ko waaye terewul di nga ñëw li ki sa ak lii sa rôle mooy bàjjenu gox muy waxtaan ak nit ñi toujours da koy def ci émission kër gi man dama la ciy remercier bu baax a baax a baax ajarat ndey soxna saar bi rek euh, mooy mooy problème bi <laughs> yaag laay saar xam naa ni seen boolu ceeb ma nga fee tege euh, donc euh, lan ngay tàggoo ak jigéen ñi rek su ko defee parce que temps bi jeex na mhm. sama invité bi tardé na waaye du ñàkk dina am loo xamante ni indiwaat na ko ci taabal ji mu waxtaan ci lan ngay tàggoo mbokki jigéen ñi ah leen di li ma leen di li may tàggoo daal mooy mhm. ñu gën a góorgóorlu rek mhm. delluwaat ci cosaan jël ci suñuy xob na xob yi fii macha allah dana la faj. du la indi benn problème cakara nan la tuddati. cakala feere cakala feere. cakala feere dina feere ba mu dëgër. waaw cakala feere bi nag moom maa ngi wax mbooyee wàdd bële cakaay. waaw. na ma ci yónnee lu bare bare. ci caka la fere en tant que bàjjenu gox. Mhm. xam naa dinaa ko soxla te dinaa ko mën a. non caka la moom mooy loolu moom. naa la na ñëw. ndeysaan ndeysaan baax na yàlla ñu yàlla dolli jàmm. amiin yaa rabbal aalamiin. yàlla def jàmm ci Sénégal. amiin yaa rabbal aalamiin. yokkal ñu bi am koo xam ne mënuma koo a nuyu. ki nga xam te mooy le directeur général de la formation professionnelle. Mhm. muy monsieur Souleymane Kane Souleymane Kane di sama xarit bi nga xamante ne nii le mm. maire Aboubacar Jamil Sané moo ko boole ak man mm-hmm. muy liggéey ak man ñu nekk di transformer def ay transformation mm-hmm. en saponification ak xeetu formation yu bari mm-hmm. mu koy jàppale jigéen yi ci biir Parcelles Assainies di ko gërëm ci émission bi di ko sant bu baax di ko ñaanal yàlla bu baax a baax a baax di sant euh, sama mag bu jigéen bi ñuy wax Fatou Sarr Adja Fatou maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu Ndeye Boy yaa Maguette maa ngi lay nuyu bu baax a baax di fay di koo xam ne rek xam naa ma limee ñëpp sax waaw wala sax du ma matale. dëgg la dëgg la bu mën a kenn mer maa ngi nuyu ñëpp. ñëpp toute la famille maa ngi nuyu toute la famille yow yemul ci benn. yaa nabu mi nga xam te ne moo yore xale yi ci kër gi ak mm-hmm. tata Fari. Mm-hmm. waaw maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. yow yemul ci benn di nuyu Ousin borom Italie. waaye mm-hmm. Ali Sarr borom Amérique. ñooñu ñëpp maa ngi leen di nuyu waaye nag di bëral nuyoo sama doom la ba jaw Lobe Diaw Lobe Diaw moom mi ngi ba Canada. ñu ngi koy nuyu ma ko posté sànq macha allah daf ma woo. ndeysaan ni ma nuyul ma sama soppe boobu aji am. Lobe maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu waa Canada yëpp sama mbokk yi. merci beaucoup waa pencu mban teg de témmee. Mm-hmm. maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu waa Tiwaawan. Mm-hmm. di nuyu ñëpp ndax foofu laa bokk. Tiwaawan laa dëkk fa laa cosaanoo yow li tax ñu soppante sama dëkk maam gaa yi Cheikh Seydi Hadj maa ngi waajal gàmm gi le treize incha allah. incha allah di ñaan yàlla yóbbu ñu ceeg jàmm ak salaam. amiin dellu si ñu si jàmm ak salaam ci barke yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam yow loo defa gën moom sañ ma ko bañ a nuyu <laughs> yow loo defa gën loo deful ko sañu ma ko bañ a fii ci plateau bi. macha allah tubaarkàlla Adja Fatou Mbaye Pouye maa ngi leen di nuyu. bu baax a baax da ngay ku baax a baax a baax maa ngi kontaane bu baax a baax ki nga xamante ni mooy Seydina Aline Diop nekk fële ca marché Yoff la moom ma euh, jaaral fii dinaa ñëw ci numéro am léegi euh, ci tissu bi moo moo fi jaar Seydina Aline Diop maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax jaajëfal Cheikh Tailleur bi nga xamante ne moo fi jaar ki 77 nga koy am 438 35 25 mu kubal la lu dégg jàmm lii parcelle la ko waaye nag kenn du soxna Aïda Diallo sama émission passée dama ko fàtte soxna Aïda Diallo bu Serigne Saliou bu Cheikh Béthio Thioune la macha allah def la mu daan defati te boolewul daraa ki wax soxna Aida yal na la yàlla jàppale yal na la yàlla sàmm yal na la yàlla taxaw mm. yaag sa famille yëpp Euh, ñoom Ndo ñoom ñëpp ñoom Lissa ñoom ñëpp maa ngi leen di kontaane te xam ne rek la macha allah jàmm la ñu bokkee ak yow jàmm la ñu àndee ak yow waaye fi nga teg sa tànk nag te teggiwoo ko yàlla na la yàlla lafal cat la macha allah tabar tabaski ji defarati nga ba mu baax. nee naa ko yónnee woo ma rek ñetti euh, xar moo xamante ni ñett a koy jiital ki koy womat kii ñand bakken ba ak ki yëkkati taat wa déedéet defu ko moom sax foog nga boole ko waa femme action solidarité amul benn problème incha allah ci social lay dox te nag nee naa leen bu jëf ji réyee moom la waaye bu wax ji néewee moom la mm. doo ko dégg boolewul dara ki wax mm. te la macha allah yàlla du fay kuy wax bàyyi kuy jëf kon soxna Aida Diallo yàlla na sa jàmm yàgg jàmbaye mm. euh, xadi balaa balaa xadi di tàggatoo waaw sama doomu ndey sama xarit waaw bi ma nee maa ngi ñëw moo ma jëndal yére de félicité mm-hmm. naani couture muy Adja Aida Cissé Aida Cissé Aida Cissé unité 24 macha allah moo ma moo ma jëndal yére moo ma ñawal macha allah daal di may habillé yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko yàlla fay mm-hmm. euh, soxna si mm-hmm. euh, fan ngay tàggoo ak ñun ci conseil bon moi de comme je peux pas parler wolof mm-hmm. parle français waaye j'ai conseillé aux femmes de revoir leur leur dignité et leur personnalité de revenir à la réalité. À la raison. Mmh. À la raison et la naturalité. Mmh. naturel, c'est plus simple. donc bokk na ci ñàkk personnalité sax sa jëkkër toog ngay jëfandikoo yoo xamante ni da lay leer ni ça c'est pas naturel y a des hommes qui n'aiment pas ça donc euh, en tout cas c'est ça mon conseil et je remercie toute euh, Cité Taco mm-hmm. et mes parents à la salle de vente d'accord et mon mari aussi qui m'a laissé venir assister à cette plateau monsieur Diop monsieur Diop ñu ngi koy nuyu bu baax <laughs> monsieur Diop nuyu nañ la ziar nañ la euh, numéro téléphone bi. 77. oui 548. oui 38 30. 548 38 30. 77 548 38 mbaa du numéro bi am problème léegi nii bi ma la doon wooyee. léegi ma réglé ko. waa incha allah suba à partir de demain. wala guddi war nañ la mën a woo demain matin rek. demain ñu numéro bi 77. 548. 548. 38 38 30 30. oui 77 548 euh, 38 30. Mm-hmm. moom mooy numéro bu ma bu ma gars yi di woon nag di ma ko laaj. caka cakala feere euh, ak euh, man cakala feere tur ma rey. cakala feere dafa neex feere. cakala feere mm-hmm. waaw kay feere. ku ko bëgg woo ko ci numéro boobu tubaarkàlla macha allah 77. 548. 548. 38. 38 30 30. mu ngi noonu su ko defee yii c'est naturel. Mhm. Euh, cepp nëbbu ko am na fu ne su ko neexoon mu ne la dama defar sama satala. Mhm. def ci samay bagage ñëwal jënd ko. Mhm. defu ko mais daf la wax ne la jigéen bi foo mënti nekk demal nga jëndi ceeb foo mënti nekk am nga goowe ak digije foo mënti nekk karité am na. donc loolu nekkul loo xamante ni xëy na daf koy mettil dugal ko ci ruq ak yooyu. yeleen di mettil xamante ni dalay wax ne la sawaay day dem ba fajar gi jot boobu moo la intéressé nga jël ko nag sawaay allez yi na doxal ba fajar gi jot bis boo woppee fajar dina jot nga di ko bëgg a teg bët mu di la të kon delloo si leen xel yi te ngeen xam ni bànneexu àdduna bi jarul loo jël def ko ci sa yaram ba mu jural la yenn jàngoro yi yenn infection yi te wax naa la ne boo woppee sa ndey lañ lay delloo barke rasulaay kon delloo si leen xel yi gërëm bu baax a baax Seydina Aline Diop ni ma ko waxee ma nga ca marché Yoff képp koo xamante ni bëgg nga ci brodé yi rek brodé jipir yi ak sër yi demal ci moom euh, tubaarkàlla macha allah danga may woo sax ma jox leen seen numéro parce que bi génnewu ma ko fii ci 77 534 91 85 mooy sama numéro 77 534 91 85 mooy sama numéro su ko defee ma boole leen nag Seydina Alioune Diop boole leen ak Cheikh Tailleur mi nga xamante ni moo jaar ci coupe toujours Al Amine Couture fële ca Yoff ca cité Adama Diop nga am ko ci su ko defee rek mu defal la yu baax yi gërëm samay invité bu baax a baax maa ngi lay gërëm bu baax a baax te ngeej sori na mais nga déplacé wu ñëw uniquement euh, pour euh, satisfaire ma man en personne mm-hmm. mais satisfaire aussi téléspectateurs téléspectateurs yi nga xamante ne ñooy seetaan émission kër gi mm. kon donc merci beaucoup di la ñaanal euh, yoonu jàmm ak salaam te nga dencal ma cakala feere mi fii ci suuf <laughs> parce que kii daf ko bëgg a jël mbokk yi jàmm ak jàmm asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu aji ndey seen bu jeen merci beaucoup fi amaanillah jaa ngeen jëf